dal leen ak jàmm àdduna day bëgg a tukki wala ñenn ci ndaw ñi dañuy bëgg a perdre raison ab xale bu jigéen buy wuyoo ci turu Xardiata am nekk ci réewum France moo nekk ci réseaux sociaux yi di ca amal ay vidéo wala sax ay direct di ci yëkkati ay kàddu yu ñaaw teg ko ci deru ki nga xamante ni moo di El Hadji Oumar Tall ak Thierno Souleymane Baal ak communauté pël yépp ndaw si nag li ko metti ba muy yëkkati kàddu yu ñaaw yooyu di ko teg ci kilifa gu tedd gi ak njabootam gi dafa jàpp ni kii di El Hadji Omar Foutiou Tall jamono ji nga xamante ni mu ngi def ab jihaad dafa tuur deret ju bëri maanaam dafa rey ay doomu adama yu bari ngir ñu dugg ci diiney lislaam loolee waral ba ndaw si maire ba Fouta di yëkkati ay kàddu yu ñaaw teg ko ci deru El Hadji Omar Foutiou Tall ak askanu pël gépp voilà surtout wax ci affaire wu ñi nga xam ne dañu nekk ci Facebook bi ah di sonal nit ñi di ñu wax ne ay pël lañoo ay descendant wu Koli Tengala la ñoo ah ay descendant wu ay euh, xawma euh, Cheikh Oumar ñoo ñooñu nga xam ne ñoo taal Sénégal ah, indi fa ay ay ay ay diine waa quand je disais que quand je disais que ah j'ai été vendu par mes propres frères c'était pas faux C'était pas faux, c'est écrit. Alors, tout ce qui est écrit n'est forcément pas, pas vrai, mais ñooñu ñu ay ñoom Cheikh Oumar Tall ay ñan ay lan Thierno Souleymane Baal mais ñooñu ils ont saigné leurs propres frères pour leur imposer des religions ah mais wax ñii naan xaw ma coli descendant coli tenge la yow sa maam tour deret forcé ay propre frère am pour ñu ñu ñu ñu ñu ñu jël religion boo xam ne ay naar berber yu ñëwoon di commerce ak waa ah ñoo ko indi ci dëkk bi ah nga nga nga reylu say propre frère imposer leen loolu nga naan yow ñu ngay ngay ndamoo mais eux c'est c'est des sanguinaires c'est tout ce qu'ils tout ce qu'ils sont c'est des sanguinaires bu nit ñi waxee ngeen naan dañuy yàq seen religion man seen religion dafa maa tax a jog man seen religion bu bu fekkoonte ne sax seen religion da ngeen koo jël ah appliquer ko dans les règles de l'art ah bañ a tuur deretu kenn yéen nga may dégg ngeen bañ a jël ah seen propre frère sacrifier leen ah les ceddo ils demandaient juste à vivre tranquillement en harmonie avec tout ce qui avec la nature avec les les les comment dire les hommes avec les animaux yéen ngeen di ñëw naan koli tenge laa koli datam ndayam laa wax datam ndayam moom ak ay sëtam moom ak ñëfa ñëf ñoom Cheikh Omar Tall seen lëfal nday ñoom ñëpp laa wax c'est des sanguinaires c'est des assassins c'est des vendus ñoom ñoo taal Sénégal moo waral tey nga gis dof yu mel ni man génn ci ci ci Facebook bi di di wax di énervé wu ah yéen ngeen yaakaar ne lan ngeen yaakaar ne mun ngeen ñoo jël jël nu jël ay diine yoo xam ne ni moomuñu ko ah avec la complice bi ma doon wax ses euh, mes frères son complices c'était pas faux ah c'était pas faux ah jël di tuur deretu deretu nit ñi ah les tekkuruur ay ñii naan xaw ma ay tukuleur fii amul tukuleur amul pël laa wax waaw sama maam sax bu ci bokkee sama maam sax bu ci bokkee ma ubbi la pël ndayam laa wax ñu naan ma ñu naan lan kenn du wax pël yi kenn du wax tukuleur yi ah yéenay ñan yéenay ñan seeni maam ñoo taal Sénégal la wax loo les Cheikh Omar Tall les Tekkuruur fii lañ ko bind les Tekkuruur euh, les Tekkuruur ñu ngi jóge ñu ngi jóge si kii nu mu tëddi euh, Nière Dinga l'actuelle région région du sud ñu nga jóge si kii Tekkuruur ñu nga jóge si euh, migration de l'ouest de la vallée du Nil jusqu'à la vallée du Nil ah ñu jóge foofu noonu ñëw Fuuta Tooro ah. les vrais les vrais tukulaar mooy les lii les si les kan les wan les tal les aaw ah yéen ñooñu doomaraam yooyu indi ay ñu mu tuddati comme euh, complot euh, euh, comme ak berbère yi ñu indil ñu ay diine yoo xam ne nii bokkul si ñun moomuñu ko moomaanuñu ko ñun ñu am suñuy diine ah ñooñu taal Sénégal tey ñëw ñëw toog ku wax ñu naan la kii yow yàqkat nga wala de man je ne me sens je ne me reconnais pas dans ces religions là ah, d'autant plus que c'est des fausses religions que vous avez vous pratiquez pas les vrais écrits vous ne le pratiquez pas ah waaye seen lëfal nday laa wax yéen ñëpp laa wax pël yeeg tukulóor y yiy ndamoo ay Cerno Souleymane Baal ak ñooñu nga xam ne dañoo sañe seeni propre frère pour imposer leen ay religion ñoom koli tengelaak seen lëfal nday ñoom ñëpp waaye allez bu faire enculer avec votre euh, religion de euh, sale race de pute là. Hein? Tour de ngeen xam liggéey ah corte nit ñi ah imposé ko li tengalaa di imposé euh, tekkuruur yi naan naan leen dañuy làkk pël yow fan nga yow yaay kan yow bay bay bay bay imposé nit ñi langue boo xam ne nii nit ñi moomuñu ko ah yabaate ngeen fii amul pël ma ne la pël man bu ma ci bokkee sax datam ndayu samay maam laa wax dëgg moo ma tax a jóg man kii taxumaa jog de ma ma guerre elle est spirituelle remettre l'histoire voilà c'est c'est peut ça va passer par moi par d'autres remettre l'histoire comme c'était waaw yéen ñooñu di ndamoo ay sëtu Thierno Souleymane Baal ngeen ak ay El Hadj Omar Tall ak allez purifier votre âme dem leen ngeen raxas seen seen seen karma moo gën ci yéen parce que vous portez un lourd karma ah da di da a porter ay yoo xam ne nii ah pardon da ngeen a porter lourd karma karma boo xam ne nii c'est c'est dañoo imposer seen propre frère ah ay ay lan ay deret ñu ñu tuur seen deret mais yow ñu ñooñu nit yooyu noonu ngeen tuur seen ñu tuur seen deret seen maam tuur seen deret ah ñooñu est-ce que ñooñu ñooñu yëg nañu ah ngeen topp seeni ñooñu xaw ma ay euh, si borom borom secte yi ñu leen di duul di leen dajale naan naan naan l'islam mooy mooy mooy xaw ma mooy mooy njëkk te mooy mujj pratiquer leen seen l'islam ngeen bàyyi laaxatu ci gannaaw euh, euh, sect yooyu lu tax pratiquer wu leen vrai l'islam ah, bi ñu bi archange yi canalisé lu tax pratiquer wu leen ko ah ngeen ñëw di nax nit ñi di leen wuto toog ci seen fauteuil yu ëbb seen lëfal nday yooyu noonu nit ñi nit ñu nit ñi nit ñooñu di dee nit ñu nit ñooñu di dee ñooñu duñu yéeg bu ñu deewee est-ce que ñooñu yéeg nañu bu ñu deewee ci ay fausse religion est-ce que ñooñu dem nañ ci leeru yàlla bi ñoo loolu wóorul ne dax dem nañ ci leeru yàlla bi ah yéen sonal ngeen ñu waaye Sénégal mënu leen imposer nit ñi ay fausse histoire mënu leen imposer nit ñi loo xam ne nii ñun moomuñu ko man moomu ma loolu je ne me reconnais pas en votre fausse religion la les musulmanteurs la ah je ne me reconnais pas vous êtes des musulmanteurs ay duulkat ngeen ah làqat yi gannaaw sect naan nit ñi ay lan lañu ah? ñu naan euh, euh, euh, jullit luy jullit lan nit daf t'as pas besoin de de de comment dire d'avoir une religion surtout en fin des temps là il faut purifier ton âme religion wu lan ku wax ñu kàddoom yu ñaaw yu ñàkki te gini nag tax ba ñi nga xamante ni ñoo bokk ci communauté pël daal di mer lool ba futu ba tax ki nga xamante ni moo di Dia Bongel Gelongal Ba di kenn ku bokk ci famille omarienne daal di génn ñawlu mbir mi daal di sàkku ci gouvernement bu Sénégal ñu yëy ci yàb yi nu mu gën a gaawe laata mbir mi di jur geneen musiba dañ leen di bàyyiwaat ngeen teewlu vidéo bi nga xamante ni Dia Ba def na ko euh, ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm tamit di leen ziyaar euh, suñu vidéo bi nag ñu ngi ko jëmloo ci ndaw si nga xam ni mu ngi toogoon ci Facebook yi walla ci réseaux sociaux yi di saaga ay kilifa di saaga lu toll na xeet yaakaar naa ni nag Sénégal bu ñu waxee ni pays laïque la laïcité boobu xëy na li muy war a tekki mooy ni ku nekk na nga jox sa moroom cëram même bu amul ci yow ngërëm na jot cëram wande man du ndaw si laay wax déedéet gouvernement senegal ci moom lay njëkkee adressé sama kàddu yi ci ñoom laa koy jëmloo ndax bu ñu nee ni fii pays laïque la rek tekkiwul ne ku mu neex nga saaga nit walla ku mu neex nga wax nit li nga xamante ni moo la neex ba xale bu tuuti bi nga xamante ni mu ngi juddoo barke barke Demba Ndiaye toog ci ay réseaux sociaux di saaga ñoom Cheikh Umarul Fouti radiallahu taala anhu di saaga ñoom Cheikh Souleymane Baal radiallahu taala anhu euh, di saaga euh, ay ay ay imaamu Fuuta te budul woon Fuuta Sénégal du am yéen ñi wax ni nag ay pël dañuy raciste man pël laa sama ndey ak sama baay te maa ngi nii toog di làkk ak yéen olof te olofal bi may làkk ak yéen tamit kenn si yéen mënul làkk sama olof kon nag bu ngeen bëggee Sénégal doon benn ah ku nekk na nga bay sawaar ci lu baax na nga ji lu baax ndax nga mën a góob lu baax kon nag ndaw sii yàlla xam fan la nekk ci àddina ndax man xaw ma fu mu nekk wante bu ma xamoon fu mu nekk ak fu mu mënti nekk dina ko fa fekk ëppal na te lii nguuru Sénégal na ci wax ci lu gën a gaaw fi ñu nekk nii suñu xol yi dafa tàng mënuñu toog ñu doon ay pël ñun ñoo leen xamloo diine ñoo leen jox nguur ñoo leen may ngeen lekk ñoo leen jural ay jabar bu dul woon ñun pël yi du ngeen xam yàlla du ngeen xam yonent bi bu dul woon ñun pël yi du ngeen dugg diine bu dul woon ñun pël yi kon fekk koon na ngeen naa ngi des ci euh, euh, buumu njaam ba bis naka tey ndax ñun ñoo bañoonu njaam bañ colonisation wante ñun pël yi ñun la ñuy bund xatal tey fële ci Mali ñun la ñuy bund xatal fële ci Guinée ñun lañuy ñuy fii ci senegal ñun lañuy ñuy bund ci Mauritanie mbaa lu tax yabel gi lu tax wànde nag yow mi saaga Cheikh Umarul Fuuti yow saaga Cheikh Souleymane Baal saaga ñu baax ci Fuuta ah li ngay duggaat mel na bu ganaar gi góof ci ay nenam na gën a looy doxantu de nga xam ni nag fii àddina la jaan ci kaw suuf tànk ci kaw suuf bu ñu dajewul ren wala bu ñu dajewul tey daañu daje ëllëg kon nag maa ngi jéggalu man du ma saaga kenn déedéet te taxuñu tamit du xaste moo ñu tax a jóg wande seen kàddu yi bëri na te forox na trop seen wax yi bëri na te forox na trop ñun ñi ngeen yab ñii nag bu dul woon ñun jeekoon du ngeen gana si àddina seen sëriñ yi ngeen gëm si ñun pël yi lañu génn seen buur yi ngeen am ci ñun pël yi lañu génn seen jàmbaar yi ngeen di yi ngeen di euh, sagogloo ñun pël yi lañu génn yal yéen lan moo génn ci yéen lu dul reñ bu ñuul yéen ñi di xas pël yi la laa wax waxuma olof yëpp de déedéet waxuma ñuy làkk olof yëpp déedéet wande ñeen ñi yéen ñi yàqu juddoo fi yàqu bëgg a yàq diggante ay xeet yéen a di def ojo yi wande nag àddinaa ngi ci suñu kanam loxo ci baat kon ko loxo gi teggoogul xoj waa paasewul lépp li ci nekk ci kanam rawita bët def nga sa ojo dégg nañu sa wax ñu ngi xaar réaction nguuru senegal dalee ci président Macky Sall ak ñi topp ci moom saaga yi nga saaga Cheikh Oumar saaga ko Cheikh Souleymane Baal ñu ngi xaar réaction am bu réactionné wul ñun pël yi daañuy réactionné. haza salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa niki ñenn ci famille omarienne bi génn ngir ñaawlu mbir moomee taxul benn yoon ba ki nga xamante ni moo di Xardiata Thiam daal di dellu ginnaaw benn yoon loole la koy firndeel moo di xale bu jigéen bi dafa génnaat defaat beneen vidéo bu gën a gudd bi mu defoon daat ci saagawaat ki nga xamante ni moo di Dia Bongel Gelongal Ba ak El Hadj Oumar Tall ak Thierno Souleymane Baal bi la ci anam boo xamante ni moo gën ñaaw moom xale bu jigéen bi dem na sax ba joxe adresse bi nga xamante ni mooy fa mu dëkk ca France mu mel ni ku naw boppam loolu dem na bay xam la ni ragalut prison te sax kenn mënut ci moom dara pour tëj ko dañ leen di digtalaatal vidéo bu nga xamante ni moom xale bu jigéen bi Xadijata Thiam defaat na ko. salaam les Lumina nuyu naa leen yéen ñëpp euh, maa fi ñëwaat euh, tey pour waxtaan ak yéen bëgg tontu man nag duma xaar kenn duma xaar kenn. mooy gis ngeen vidéo bi yéen ñëpp ma jaaboowal gelongal ba ah dama koy wax ci pël pour mu dégg mu xam ne man pël la balaa ngay génn ci ci ci réseau sociaux yi di wax dangay renseigné wu jaa ba jaaboowal boowal gelongal ba sa datam nday yaa ngi may dégg aan rawaandu boom rawaandu boom urma rawaandu urma kaa deedaaɗo faa sedere mooy xaj sax moo ko gën ndax lu tax ma wax loolu yow yàlla dafa sàkk nit teg ko ci kaw sàkk animaux yi sàkk euh, minéraux yi végétaux yi yow ngay ñëw di tuutal animaux yi yow foofu ngay xamee ne yow xamoo yàlla déggal sa tur bi rien que ton nom jaa boowal boowal mooy lan mooy sibiti mooy que ne yow àndoog yàlla nekkoog yàlla sa datam nday xam nga danga ne dama saaga El Hadj Omar Tall moo taal Sénégal moo taal Sénégal dinaa ko saaga datam ndayam waaw ak ñi ko yaakaar seen datam nday ak pël yëpp seen datam nday laa wax yaa ngi may dégg nga ne lan Thierno Souleymane Baal Thierno Souleymane Baal moom dëgg la dinaa ko nangul moom moo euh, génnee numtati c'est lui qui a renversé la dynastie des Nian des les des ah au côté de Abdul Kader Khan chef de guerre la woon ah loolu nangul naa la ko mais tey da nga ne damaa saaga kan damaa saaga euh, El Hadj Omar ngeen di porte plainte seen plainte bi lay jël ñuux ko sa datam nday yow laa wax jaaboowal gelongal ba plainte bi ci boppam lay jël ñuux ko sa datam nday man munalu leen ma dara dégg bu baax li ma la wax man leeru yàlla bi moo wàcc si man bokkuma ci lobby bokkuma ci organisme bokkuma ci mouvement kémit bokkuma ci benn diine bokkuma ci New Age bokkuma ci benn groupe boo xam ne ni moo may poussé kenn forcé moo wax loo wax ma yaa ngi may dégg man leeru yàlla bi moo may waxloo loo sa datam nday laay jël gis nga plainte boobu noonu ñu def Aminata Tall Sall descendant de d'esclave ah ak euh, Aïssata Tall plainte boobu ñu def moom lay jël ñoox ko sa datam nday laa wax ba muy ba muy moom dégg nga baax lu ma lay wax man ñi ngay ndamoo ñi nga xam ne dañoo tuur deret Sénégal man ndamawuma leen man bu may ndamoo damay ndamoo loo xam ne nii lu équilibré la maanaam nit ñi ñëpp gis ci seen bopp nit soxla nekk ci religion wala nga nekk ci groupe wala nga nekk ci doctrine boo xam ne ne dalay endoctriner ba doo xamati yaay kan pour dem si yàlla dem si yàlla yoon la yaa ngi may dégg yow déjà sax ara an deedaaɗo an ɓi sedere an ɓi lamde o ah maanaam mooy yow mi nga xam ne am nga doomu cottu ndayam nga yaa ngi à l'extérieur de Dieu jaa boowal waa anani ku mbimaami ko boowal ah boowal jaa boowal demal nga katt sa nday laa wax ah bu toj sa lëfal nday bi nga dem bay sa say toolu maam boo ko amee pédophile ngeen ndax loolu ngeen di promouvoir da nga yaakaaroon ne xëy na dangay génne sama vidéo bi colmaté wax ci su la lu la neex ah def ci lu la neex ma ne pat nee naa la man li ma yëngal man yàllaa ma yëngal duma sa morom duma sa maas dégg bu baax li ma wax dinaa ubbi sa datam nday ci baatin laa wax dégg bu baax li ma la wax sa ñoom El Hadj Omar Tall yooyu noonu ak sa ñoom Thierno Souleymane euh, Baal ñi ngay wax man ñooñu dunduma leen man yàlla laay dund dégg nga baax la ma la wax sa Thierno Souleymane Baal nangul naa ko ne moom moo fa génnee dina si deñankoo bi ñu bëggoon a euh, imposer euh, monarchie euh, ceddo yi nangul naa la ko nangul naa la ko mais san ne veut pas dire que je je m'excuse même bu ma la ko nangulee mais loolu équilibre amu fa ah Souleymane Baal Kayoor la jàngee Coran Mauritanie Fuuta yaa may Fuuta Jalon ah ak Bundu yaa ngi may dégg mu créer état théocratie état théocratie mooy lan mooy loo xam ne ni dafa fondé wu sur un idéal de justice ah théocratie de de comment dire c'est euh, loo xam ne nii c'est divin yéen da ngeen ko pratiquer sa datam day est-ce que loolu pratiquer wu leen ko seen cottu nday laa wax dégg mu baax ma wax la ma ne la xam nga damaa saaga ñooñu. ah damaa saaga ñooñu yow nga génn nga naan man dañ maa war numtuti man ak samay frère samay frère ñoo la gën téeméeri junni yoon. rootib xajjata càmm bu mujj bi nag ki nga xamante ni moo di Cheikh Thierno Bachir Oumar Tall di doom ci xalif général bu famille omarienne gën na daal di bind ab plainte te xam ni mbir mi dafa ëpp duñ ko bàyyi noonu daanu ko topp ba fa yoon yam fii la ñuy yem ak yenn daanu leen toppal dossier bi indil leen ci ay leeral nu mu gën a yaatoo jërë ngeen jëf.